di nuyu présidente euh, commission éducation di nuyu sama collaborateurs yi fi nekk yëpp di wax ne dañu daje ci suba si pour niñ ko daan defee rek at bu ne ñu jox jàngalekat yi fourniture yoo xam ne dina leen permettre ñu mën a ubbi te ñu mën a ubbi seen école euh, jox xale yi fourniture ñoom ci seen bopp ñu am ay crèche yooyu ñu mën a jëfandikoo ba ñu mën a commencer seen liggéey di wax ne ba ñu commencer nag yàgg na. ndax ñu ngi defar école yi lu mel ni UNESCO amu trois ngeen xam ne lépp yàq woon ñu ngi koy defaraat euh, bi nga xam ne mooy unité 4 di PAY tamit ñu ngi koy defar di defar Serigne Niang un plutôt Seydou Nourou taal euh, ci suba rek wax nañu ak entrepreneur boo xam ne fi leex ñaari fan dina commencé Adolphe Diagne donc ñu ngi ci defar bi ndànk-ndànk ñu defarandoo yëpp waaye ñu ngi defar yi nga xam ne ñoo gën a yàqu ci yooyu lañuy gën a defar di wax ne tey nag ñu daje ak jàngalekat yi pour jox leen cahier jox leen craie blanche ak craie couleur jox leen rame de papier jox leen euh, ay bale euh, ak madaar ndax ñu mën a commencer at bi di wax ne lu ñu leen dimbali nag xeeb nañ ko ndax jàngalekat yu xarañ lañu te at bu ne dinañ jox Golf Sud vraiment ay résultats yoo xam ne dafay tax ñu siggi kon lu ñu leen defar rek nañ ko ndax par rapport ak ñoom li ñuy liggéey war nañ leen jàppale lu bare bare ndax wax dëgg yàlla dañuy liggéey kafewuñu seen liggéey defe naa saa yu examen jotee Golf du ci des ginnaaw kon dama leen di féliciter di leen encourager di leen ñaanal leen ji deux mille vingt 2020 2021 nga xam ne metti na ndax feebar bi fi nekkoon tax na école yi metti seen reprise waaye ñoom xam naa ne dama leen di ñaanal rek uh, at bi yal na leen yàlla dimbale bi mu nekk atu jàmm ci école yi nga xam ne feebar bi jóge fi te ñoom it résultat yi ñu am mu gën a baaxaat waa dina nekk diggante juróom ba juróom benn million kaye uh, la carton yi nga gis ay carton wu kaye bu ne carton bu ne am na 400 kaye donc am euh, craie de couleur am craie blanche am madar am rame de papier am ay bale euh, defe naa loolu la bu dee jumu maa ngi am mbégte di teewu fii la euh, di teewu fii ci wetu madame le maire ci kaw bu buñ ñu wooyee ci kaw bu ñu maanaam joxe fourniture yi nga xam ne moom la jégaleel école yi bokk ci di waanam lii dugguleet dafa di chaque année at at bu ne balaa doorte balaa école di ubbi dafa ñu doon woo dañu laaj lan mooy sunu mbébét n'est-ce pas bu ñu ko waxee ba pare dafa ñuy wax toujours ne lu mën a def dana ko def lu mënul def aussi day xam ne vraiment yéene nañu ko mais mënu ko def donc ren encore mu ngi nii jégleel ñu fourniture yi cré bi nga xam ne moom lañ gën a soxla firmu ne ci ubbite école bi vraiment may rafetlu te di ko gërëm ci loolu boole ci di ci sant conseil municipal bi maanaam mbooleem adjoint yi mu bokkal liggéey bi di ci dolli aussi la présidente de la commission éducation n'est-ce pas koo xam ne vraiment mag moom dañuy travailler maanaam dañuy lëkkaloo di liggéey di déggoo donc euh, looloo tax ma bég lool nest pas di di di di recevoir maanaam di jot matériel bi euh, ci turu sama yi naataangoo directeur d'école yi rawat na ñi nga xam ne ñoo fi teew waaw école yi amul benn école boo xam ne boo demee da ngay naan bii école vraiment y a rien amul wax naa ko sànq ne école boo gis ci commune bi boo xoolee toit bi maanaam kawam dafay senn loolu gën na ci am firnde daaw bu ñu naree organiser examen yi am na centre yoo xam ne école yoo xam ne dañu leen mujj a toxal dañoo mujj toxal candidat yi parce que école bi munul mënul euh, accueillir maanaam dalal candidat yooyu nga xam ne candidat mu doon candidat entrée en sixième wala bac parce que boobu boobu temps temps nawet la woon looloo tax may rafetlu ci partenariat bi nga xam ne madame le maire ak euh, institution am na ko ak PACASEN ak beneen partenaire bi nga xam ne wax na ko sànq Feeling Aid donc dam ciy rafetlu parce que dina dina dinañu jox benn benn maanaam benn élan boo xam ne vraiment école bi école bi fekk mu ngi rafet école bi fekk mu ngi accueillir nit ñi ci anam yu rafet dafay gën a motiver enseignants yi ak personnel administratif bi maanaam ñi fay ñi fay ñëw di yëngu dañuy gën a sawar muy élève muy jàngalekat muy directeur d'école parents d'élèves aussi dañuy gën a wóolu école publique parce que école publique dafa dem ba am crise lu tax parce que xar kanam bi mu doon wone moo rafetul woon boole ci yeneen troubles sociaux yi nga xam ne moo doon am ci biir école ba tax na projet yooyu bu demee ba ba ba ba ba am vraiment dinañu amaat école bi nga xam ne moom la ñu amoon ci jamono yële passé maa ngi ñaan état bi vraiment jàppale madame le maire exonéré ko maanaam euh, maanaam baal ko impôt yi mu war a def ci projet yooyu ndax vraiment mu mun a def liggéeyam ndax école commune Golf Sud mel ni école école Ndakaaru ak école yeneen yi nga xam ne ñoo ci site résidentielle vraiment loolu la ñuy yéene te di ko ñaan état bi. jàmm ji info waaye nag informer éduquer et divertir dans la